ñetti point moo nu fi indi premier point bi mooy première tranche bi ñu dëkk muy parcelle un ba six amoo faja golf cité fay sàll ba Nations Unies alentour boobu yëpp ak golf ñun ñi nga xam ni ay jeunes lañ bi ñu fi dëkkee ba léegi gis ni mu mel doxul puusul paasul ñu war si waxtaan en tant que des jeunes deuxième point bi mooy ñu am benn candidature bu ñëpp yaakaar am si moom yaakaar muy jeune engagé wu bëgg gox bi mu dëkk bu dee wàllu jàng gars yi ëpp na ko diplôme bu dee gëm liggéeyam gars yi ëpp na ko muy lépp ci compétence am ñu war ko investir fii muy président Lat Diop may ñaan ñëpp ñu tàcc le président de Lat troisième point bi mooy feebar bi nga xam ni moo jot am muy mbas mi ñu naan feebar bu dugg ci Sénégal partout dans le monde ñëpp di ko moytu yàlla na ci yàlla musal troisième bi looloo tax ni ñu jël su quelques nit sax sélectionné leen ñu toog pour ñu parce que meeting lañ ko bëggoon def mais comme feebar moo am te boo nekkee ci dëkk ñëpp soldat la dangay ngay ànd ak ñëpp soldat moo tax ñu moytu loolu ñuy présenté nag délégation bi nga xam mooy cercle des généraux de Lat Diop bëgg investir seen président Lat Diop bëgg ko jox gox bi muy commune Golf Sud li bu woote bi nag mooy jeune premier tranche ñoo mànkoo woon ànd seeg seen yaay ak seen papa yi ñëpp muy commune muy commune Golf Sud ñëpp ñu dëkk ci commune bi ci benn mbir bu ñu yitteel ñun ñëpp mbir mi nag dafa nekk loo xam ne nii bu ñu xoolee ñun suñu gox suñu gox ñun ñëpp muy première tranche unité un ba unité six Cité Fadia Guentaba amoo Faye Sall euh, Cité Douane Cité Douane ñun ñëpp ñu nekk ci ay tolof tolof yoo xam ne nii kenn mënuñu si génnee lu dul ñun suñu bopp ndax dañoo yàgg ay politiciens dañoo yàgg ñëw suñu gox di ñu dig di ñu nax ñu leen di gañeel ndax ñun ñëpp xam nañ ne képp ku am ndam première tranche yaay diriger commune Golf Sud ci tànk yooyu képp lañ jóg bañ ku ñu naxaat moo waral ñun jeune première tranche yëpp ñu booloo dem waxtaan nag képp kuy délégué de quartier képp kuy chef de quartier di imam dëkk ci gox bi ñun ñëpp ñoom ñëpp ñu jox ñu seen seen aval nañu carrément yéen yéene suñu doom te ñun ànd nañ ak yéen lépp loo leen sumb ñun dinañ ci ànd ak yéen te ñu nangul ñu tamit ñun fuñ taxaw taxawuñ fenn fu dul yëkkati suñu gox ndax ñun ñëpp xam nañ ni première tranche dafa dellu ginnaaw boo xoolee waxuma Ndakaaru sax mais mën naa ne Sénégal première tranche bu Parcelles Assainies bokk commune Golf Sud dafa bokk ci secteurs yi gën a reculé ci Sénégal ndax ñun ñëpp dañ fi nekk ay jeunes juddoo fii yoroo fi màggee fi mairie bi di def loo xam ne nii si dëkk bi boolewuñu si am ay kuréel yu bari yu nekk fii yoo xam ne jug nañ pour xeex lool noonu pour jëlaat unité 1 ba unité 6 plus précisément rattaché ko ci fi mu bokkoon ci parcelle commune des parcelles ville de Dakar mais ñu si bëri xam nañ ne loolu mënul nekk dañuy jéem a ñun ñëpp waxtaan jéem a fexe nu ñu es duggee ci biir mairie Golf Sud bokk ci fi ñuy décider loolu moo waraloon ñun jeune première tranche dajaloo créer benn cercle tuddee ko la cercle des généraux tànn nag seen candidat idéal seen candidat boo xam ne moom la ñu yaakaar ci mairie bi muy monsieur Lat Diop moom lañ bëggoon investir tey ci dimanche vingt cinq juillet bi fii ci terrain Santos wante mënul woon am ndax dafa am xew-xew bu am Sénégal muy benn tawat comme ñi jël kàddu bu njëkk li li ñu wax rek di ñaan yàlla feebar bi jóge fi feebar boobu nag moo waral euh, président inter euh, président ne bu ñu ñu moytu ndaje yi euh, moytu fépp foo xam ne mbooloo dañ fay dajaloo daal looloo waral ñu annulé ko ndax ñun comme ni ko sama waa yi njëkk jël kàddu waxee rek bugguñu ñëpp soldat la ñun ñuy def tànku neen ndax ñun dëgg la nag sonn nañ waaye kenn yaruñu si loolu dinañ tegu ci réew mi lim bëgg ñu doxee ànd ak ak njiitu réew mi ci lim bëgg ñu doxee tey fàttali tamit njiitu réew mi ni ko ñun askanu Golf Sud ñun askanu première tranche bi gën a sonn ci Golf Sud ñun ñi nga xam ne ñooy dooley poids bi électoralu mairie Golf Sud ñun ñoo jug waxtaan bëgguñu benn politicien di ñëw suñu secteur di ñu dig wala di ñu naan dinaa fi def lii dinaa fi def lii ñun waxtaan nan jàpp nan ni président Lat Diop mooy doon le kan mooy suñu maire si locale yii di ñëw di wax nag ñu tëb tànn décision boobu ne ñun président Lat Diop la ñuy samp mu nekk suñu candidat ndax président Lat Diop dafa nekk ndaw dëkk si dëkk bi jàng nekk doomu géejawaay war a am lu ëpp commune golf ci biir géejawaay waaye bu demee ba moom mu déggal ndaw ñi ko topp déggal mag yi ko topp muy ñi ëpp ci ñi ko topp dañoo dëkk commune de golf sud ñu ñëpp ne ko mu ñëw bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëw ñu jox ko mairie bi mu doxalal ñu ko ndax moom nekkul moom moo taxaw ne daa bëgg a nekk maire mais ñun ndaw ñi ñun ay ñi ko sopp ñun ñi bëgg a màgg mel ni moom dëkk ci gox bi ñun kat ñoo am yéene ni suñu gox kenn duñu ko defaral lu dul ku ñu fiy teg te ñun gëm nañ ni ñun président Lat Diop moo ñuy defaral suñu gox ci loolu nag lan taxaw ñu ndaw premier tranche ne dañuy tànn candidat tànn nañ ko nag muy président Lat Diop looloo waraloon ndaje bi ñu bëggoon ko def ci terrain Santos waaw mais corona bi moo tax mënu fa mënuñu ko fa def looloo waral ñu tenir nag ngaje bii nii woo journaliste yi ngir ñu ñëw bañ a neenal bis ñu xamal képp ku dëkk première tranche niñ ko defee woon dem si délégué yeeg imam yeeg ñëpp di leen fàttali ni première tranche mbooloo bi daje nañ te mbooloo bi tànn nan président Lat Diop président Lat Diop mooy candidat première trance ci élection locale yi ñu jëm. da nekk ci parti muy APR euh, Macky Sall doon jiit bi mais fi ñu toll nii ci gox bi parti moo nu fi moo fi tollool état moo nu fi tollool parce que état moo doon tànn ñu ko neex ci commune mais fi ñu nii Lat Diop Macky Sall bu tànnee li ñu war a tànn APR Géejawaay dinañ sonn ndax tànnul ki mu war a tànn ki mu war a tànn mooy Lat Diop ñun ku ñu doy mooy Lat Diop parce que lii affaire commune la Macky président de la république bu ko neexee mu tànn ñu tànn mais suñu carte ñun ñoo ko moom moo tax ñu dajaloo pour changer suñu gox Lat Diop ou rien moo nu doy keneen ku mu tànn loolu moom la neex mais ñun li ñu ñor mooy Lat Diop ou loolu mooy devise bi suñu tànnul Lat Diop eggagunu foofu eggagunu foofu tànnagunu Lat Diop ak tànnagunu eggagunu foofu buñ fa àggee li si war lépp dinañ ko def